FAWE Sénégal organisation non gouvernementale la boo xam ne dafay euh, euh, yëngu ci mbiru euh, jangu jigéen ñi lu len ñu dugg ci école bi ñu dess ci école bi mais tamit sen jang xarañ ah légui tamit man dama ñu wuy ci tay Action Aid ci seen ndax ta duñu bëgg boole suñu loxo ñun ñep pour mëna fi jëlé metti lu jigen ni xalé yu jigéen yi ak euh, jigéen ñi d'une manière générale liggéey la boo xam ne nag liggéey nañ si lu bari ndaxte formé nañ ci euh, suñuy acteur formé nañ ci aussi acteur territoriaux euh, yi ak administratif yi ak acteur acteur communautaire yëpp pour que ñëpp mën a taxaw ci xeex métital jigéen. ci cadre boobu ñun jot nañoo taxawal li ñuy wax ay observatoire observatoire yoo xam ne dañuy xeex métitalu jigéen ñi ci ñetti région Ziguinchor euh, Kolda ak Sédhiou tey fas nañu yéene aussi aussi euh, kii ko yaatal ko ba académie yëpp am comme ça bu ko defee euh, bépp kii xale wala jigéen boo xamante ne da nga jànkonteel coono boobu ñu mën la taxaw jël la en charge